jërëjëf mais loolu gàkkal na ko ba pare et je pense que wax nga ko tout au début en propos introductif je l'ai ah, totalement ah. souligné et j'ai mm. bien dit que ça aurait pu être réglé ici au Sénégal par notre justice mm-hmm. si on n'avait pas une justice défaillante mm-hmm. on n'aurait pas besoin de mener ce débat purement politique mm-hmm. et qu'on n'a pas pu mener de l'intérieur et c'est un négrier qui nous permet maintenant de pouvoir. Non, le faire non négrier xaw na doy de. doo wax sa un ex colon un ancien <laughs> négrier xaw na doy waar da nga bëgg wax kon ñu ngi ci mbuumu jaam ba léegi daal. négrier c'est un peu. mais comprenez dans tous les cas. négrier ñoo doon jàpp suñuy maam di leen jaay jaam. parce que on a voulu que tout se passe à partir de la France. muy Macky Sall muy ñeneen ñi ça me pose problème. moi je voulais que tout se passe ici parce les idées les actions le développement tout soit endogène